non ñu débat ci actualité bi nga xam ne moom moo nekk actuellement si que ça soit niveau France wala Sénégal parce que gis nañu yi tam ñu ngi ci sànni seen kàddu concernant le cas Idrissa Gana Gueye ak journée bi nga xam ne moom la ji dédié pour LGBT yi gis nañu daaw fubalul parce que déjà dafa amoon blessure mais ren jii nii amul blessure bu demee ba compliqué seen maillot s'est floqué flocage bi drapeau góor jigéen moom jéewul ñu bëgg kaa sanctionné ci kaw loolu avant moom am na ñi nga xam ne def nañ ko am na ay sud américain ñu ko def dara fekku leen ci te au niveau de l'Angleterre aussi am na benn jour ivoirien yi nga xam ne mooy yow Black Lives Matter am na signe bi du ko def nee parce que amul benn sens ba tey ñoom bu ñu sëggee ñoom moom la euh, ñoom ñëpp sanctionné ñu lan moo tax Gana Gueye mu war a doon cible. voilà Gana Gueye warul doon cible waruñ ko nangul kenn. ci àdduna bi euh, muy def kii que ce soit cible di yàlla yàlla ci kaw nit ñi man imaam la te bokk na ci li ma jàng ci alquran mooy kenn war te yàlla yàlla ci kaw nit ñi ñun ñëpp ay mbindeef lañ dañu war a joxante àq ak yelleef kon duñ ko nangul kenn muy yàlla yàlla lu ci kaw nit ñi nangu tamit muy Idrissa muy keneen ku yàlla yàlla di ko not di ko jël comme cible mel na kuy cible benn mala wala benn njanaaw mais tubaab yi nag seen féttirlu euh, egg na foofu ci bëgg def nit ñi jàmm ak not leen ci lépp loo xam ni fekkuñ leen ci ñoom seen pas-pas ak seen gëm-gëm donc moo tax problème Idriss Seck bi problème bu yaatu la boo xam ni day dugg ci Idrissa Gana Gueye ngeen baal ma euh, lan laa waxoon Idrissa Seck Idrissa Seck <laughs> Idrissa Gana Gueye laay wax euh, ñàkkul Idrissa Seck boo gisee ma tudd ko mooy depuis ba ñu jàppanteeg moom ñun gëstukat yi ca la mu ci bàkka màkka ñun loolu ba dañ ko koy xoolee ba tey moo tax ñàkkul yatus bi loolu moo ko indi. Euh, su ko defee nga gis ni agenda LGBT bi ñun biñ ci commencé wax ñu ne Imam Kanté dafa bari wax nangam ak nangam fom naa léegi ñu ngi gis ne mi ngi ñëw kon agenda boo xam ne la agenda bu mondial la la preuve xoolal journée bi ñu ko wutal. journée mais en même temps bu ñu nax nit ñi gis nga journée bi ñuy wax nii ci suba def naa ci sama benn poste c'est pas une journée mondiale ah il faut d'abord respecter les termes xam nga su ñuy wax journée internationale wala journée mondiale mooy journée boo xam ni ONU moo ko acté mu nekk xam nga am ni fépp c'est pas mën nañ jël n'importe quelle journée benn journée xam par exemple boo demee ONU moo ko acté ñu jaar fi ñu waroon jaar ak moom yëpp des fois ça prend des années avant ñuy juboo parce que loolu baax na lu rafet la ñu civilisé dañuy waxtaan au niveau de l'ONU les 195 états à peu près waxtaan ba d'accord ko def ko journée léegi chaque année ñu waxtaan ci contenu bi et cetera mais par contre lii nii du journée mondiale de nekkul lu ONU tëral journée bi européens yi ñoo ko tëral benn fondation su ngeen defee seen recherche di ngeen ko gis ñoom ñoo proposé d'abord Angleterre la commencé woon day of xaw ma lan homosexualité nangam-nangam su ngeen demee di ngeen ko gis. day of gay la mais day of gay mooy day of gay ça n'engage que ki wax day of gay journée am la kon bu dèjà bu ñu nax ni ñi ci terminé xam nga fu nekk boo ko dèjà journée mondiale la jullit ñooy tànqal nit ñi lu àdduna bi yëpp juboo ñoom li ñu fontoo nit ñi c'est c'est faux c'est pas une journée mondiale du journée ONU donc journée boobu ñoom ñoo ko lijjanti foofu au niveau de l'Angleterre te comme ñoom lu ñu lijjanti rek dañuy bëgg mu nekk lu mondial moo tax ñu tuddee ko des fois international wala des fois mondial du benn mondial xool naa gëstu naa ko y' a pas plus de 60 pays yu koy célébrer te même ñooñ sax bu xam na lañ koy célébrer ñenn ñi sax dañuy xaw a làqatu sur les 195 états du de de l'ONU kon nag bu ñu tànkal nit ñi ci affaire que affaire journée mondiale la loolu benn la. beneen bi mooy question bi nga posé il faut ñu xam ne problème Idrissa Gueye bi dañ ko war a régler dans le principe comme ça mu nekk une question impersonnelle ah parce que am na keneen koo xam ni affaire bi moom bëgg na am ci taxawaay. mais soit ñemewu ko wala xamul hmm. lu ko ciy fekk wala xamul lu ci àq yelleefam en tant que sportif kon dañ ko war a régler de façon impersonnelle ci principe bi ba pare régler ko dans le temps lu ma bëgg a wax mooy définitivement loolu c'est extrêmement important mais nekk fii rek noonu nañ jàppal Idrissa Gana Gueye pour lan daaw dafa wax ne dama feebar euh, ren solu ko ñu ne ko ñëwal expliquer ñu wala nga sol ko euh, déwén lu muy def non comme journée bi xas na am déwén dina amaat léegi day noyyi rek nii le temps que déwén ñëw mu seet lu muy def nañ ko régler de façon impersonnelle comme question bi ni mu ñëwee sànq gis nañ fi ay nit même bu dul journée seen journée euh, LGBT bi gis nañu Mbappé mu jël benn marque sàngara euh, ne duma ko teg. Pogba tamit yéen a gën a xam te club yooyu jëloon ay engagement de publicité ay milliards la leen coûté. Cristiano Ronaldo def na ko. c'est le même principe. c'est-à-dire benn joueur a ngi nii bu bokk ci benn club club boobu am ay publicité nga xam ne dépassé na individu moom mu jël responsabilité individuelle ne lii du ma ko def. mais nag LGBT dañoo am doole ñoom nag bokkuñu ak ay publicité yooyu ñoom ñoom comme ñoom dañoo am doole en fait dañoo am doole euh, ñun en tant que jullit ñun ñuy jàng alquran nekk imam ñun duñu wax benn mbindeef am na doole dañ naan dafa bëri pexe rek waaw pexe lañ bëri waaw amul benn ëppuñ fi kenn doole pexe lañ bëri nit ñi ñàkk fayda euh, bàyyi leen ñu leen di fonto mais kon euh, lu tax cas yooyu euh, amul tole bi ma Idrissa Seck wala wala ah, ngeen baal ma wala Idrissa Gana Gueye Idrissa Seck na ma baal balaa damay ragal ay nitam dégg conférence bref ñu ne Imam Kanté ci yow la nekkoon alors Idrissa Gana Gueye xanaa kon léegi li mu nekk jullit moo tax mu gën a neex a jam gën a neex a ciblé comme Touré question bi mu indi wala li mu nekk africain moo tax ñu war ko gën a mën a yàpp attention loolu duñ ko nangu de ñun ni en tant que musulman ni en tant que africain pourquoi sud américain su ko defee ñu ñu négocier bàyyi bu ko benn européen defee ñu négocier bàyyi parce que peut-être chrétien la wala que euh, tubaab la attention loolu nag day gën a aggraver ñoom seen position kon loolu xénophobie lay indi ak islamophobie boobaa nag damay proposer benn journée de lutte contre l'islamophobie xam nga lu may proposer joueur nañ sol benn maillot boo xam ni kaaba gi moo ci nekk c'est normal pour équilibrer c'est une lutte contre l'islamophobie islamophobie baaxul mooy bañ l'islam te am na ci pays européens yi. d'accord xam naa moom damay terminer par par euh, yi nga xam ne moom la mën a indi euh, ci niveau diplomatie parce que le chef de l'État monsieur Macky Sall tuuti na di ko soutenir gis nañu ñoom tam seen fédération que ça fédération française bi ak club bi dirigeant itam génn ku ci nekk di wax. baax na na xumb c'est bien na ñëpp wax. que les gens s'expriment xanaa xamoon nëpp nëppal bi ak euh, cof-cofaan bi mooy tax du ñu régler affaire bi déggoo li ma la wax turé léegi dama ne la affaire bi nañ ko régler dans le principe et de façon définitive na nit ñi wax toutes les parties prenantes dañu ñoo ñu wax dañoo war a wax seen cër la parce que euh, fédération sport bi le conseil d'éthique de la fédération française ak suñu président ak suñu fédération sportive ñoom ñëpp jël nañ position noon la war a demee duñ leen may ñu noppi ci ah. parce que dañu war a régler problème bi ñaareel bi tamit Idrissa Gueye mais euh, doomu jàmbur la adulte la Euh, jullit la africain la bu digne Valérie Pécresse mi ngi koy attaqué naa nañ koo sanctionné financièrement mais Idrissa gànna Gueye gëstu naa sànq deux millions d'euros la levé pour les enfants africains atteints de VIH sida et de cancer dégg nga Valérie Pécresse kii ko félicité ko te pourtant mi ngi wax affaire exemplarité Valérie Pécresse mu ne Pécresse mu ne ku nekk euh, ci football bi nit ñi di la suivre da nga war a nekk exemple Idrissa Idrissa Gana Gueye loolu mu def levé 2 millions loolu exemple rafet dégg nga mu ko seen exemplarité bi c' est c' est sélectif c' est sélectif léegi moo tax ma na la je reviens toujours sur ça nañ ko régler dans le principe mooy que euh, il faut que mu am clause yu claire xam nga proposé naa ko sama benn poste peut être am na ñoo xam ni comprendre dama ne clause de conscience na am ci sport bi clause de conscience nga xam ni euh, nit ki buy signé contrat day wax ne man football moo fi indi wala daw wala xaw ma lan mais pas di nekk militant wu benn cause idéologique wala politique wala lu mën a doon. te loolu mi ngi ci texte yi foofu ci seen fédération yi la preuve tey jii comme ni ma la ko waxee Israël mi ngi noot Palestine di nangu seen suuf di leen toroxal mais tey jii boo bëggee wax ni damay sol maillot euh, Palestine ñu ne la non bul dugal affaire politique pour c' est la dignité humaine qui est en jeu parce que ñu ngi rey ay par contre LGBT ñu ne loolu moom non seulement danga ko war a dugal ci sport bi mais sax boo solul seen couleur ñu sanctionnel kon loolu nañ ko seetaat ma ma ma am benn dimension aussi bu ma ci dolli. lool lool lool xam nga mooy lan. mooy que ni il faut que FIFA régler question bi définitivement avec les fédérations sportives ñu xam ku nekk sportif est-ce que dañ ko bëgg a def militant wu benn cause wala sportif la nañ ko régler clairement dans les textes il faut regarder les textes au niveau de la FIFA parce que textes yooyu bu ñu ko régler foofu mooy ball mooy régir les autres fédérations de sport bu ko defee joueurs yi bu ñuy signé ay contrat tamit kenn du leen fooyee naan leen da ngay génnee sàngara bi wala que da ngay euh, bokk euh, LGBT kooku benn la beneen bi aussi mooy boo xoolee def naa ko ci post bi boo jëlee tey club yi gën a am doole tey Europe seen xaalis fan la jóge ci ay musulman ñu nekk ci golf bi. Hmm. am na club yi xam demoon nañu bay nax saay ñu def fay investiment massif jënd club ba jënd stade ba jënd bi pendant des années. Newcastle Chelsea. yéen a ko gën a xam. kon enjeu am na fa enjeu financier am na fa. Hmm. Valérie Pécresse maa ngi wax ak moom je lui parle clairement. pare naa ko defal benn poste pour moom su fekkee ne affaire ay sanctionné xaalis ngay jaay da ko def ki sa xaalis xaalisu Paris Saint-Germain ak Newcastle yooyu tubaab yi moomuñu ko tubaab yi fi ñu mënee mooy jël suñu xaalis diñ diñ diñu ci tooñ diñu ci mais tam suñ ko defee c'est que ñun jullit tamit ñu joxe suñu xaalis ak ñun africains yi di leen ko jox asiatique yi duñ ko nangu chinois yi doo laal seen xaalis di leen fonto kon kii ki ki ki yore tey ji Paris saint kan la seen financier bi du Qatari waaw du may dugal milliard ci club bi li li dugg foofu club bi est-ce que ëppul budget wu Sénégal alors waaw léegi nag yow di nga am xaalis mel noonu ba pare bàyyi tubaab ñu lay fontoo kooku tam dinaa ko defal poste cent comme cof naa leen déjà nan ngay nekkee musulman xaalis bu mel noonu nga dugal ko ci club bu tubaab ba pare tubaab bi ne la léegi ci biir club boobu am na journée boo xam ni yëfu góor jigéen dañ koy célébrer te waa club bi dañ koy sol xam nga lu ma koy wax nu mu tudd joxaat ma tudd Nasser xalaf yi man imam Ahmed Kanté de Dakar maa ngi koy interpellé di ko wax xam nga lu ma koy wax dama ko nii bu fekkee ni lii dëgg la ah moom ci boppam journée boobu dafa war a sol maillot LGBT il fait partie du staff du club oui lu tax ñuy bàyyi rek Idrissa muy bañ moom moo war a njëkk ko bañ parce que moo ci def alalam te moom tam musulman te yaakaaruma ni danañ ko wax mu sol ko mais jour boobu euh, club ñëpp ko war a sol supporters yi sol ko staff bi sol ko du rek joueur yi kon moom ci boppam na ko sol te du ko ñemee sol parce que bu ko solee Qatar woo ko ne ko bul ñu fonto kon nag na ñu nañu régler problème bi définitivement mooy li ma proposé noonu mooy que musulman buy investir dans ces clubs là ci problème ci investissement bi ci boppam du problème nañu defaale benn clause éthique comme ni ko tubaab yi defee léegi ah def benn clause éthique mooy que nii kenn du imposer benn joueur ne serait-ce muy sol wala di célébrer loo xam ni dafa weddante ak gëm ngëmam wala euh, culture am te loolu poser ko problème de conscience personnelle war nañ ko may mu bañ a dugg ci loolu. loolu tubaab bi comme xaalis rek lañ gëm suñ leen waxee ni su ngeen nangu loolu ñu tam duñ fi investir dinañ xoolaat affaire boobu donc pour man noonu lañ ko war a régler de au delà de Idriss rek sur le principe et de façon euh, définitive mais mënuñu xaar chaque année. Euh, ñuy wax euh, qu'est-ce qu'on va faire di di di di féliciter bu baax Idrissa Seck di ko ñaanal yàlla sa Gana Gueye di ko ñaanal euh, yàlla tawfiq il est vraiment exemplaire ci taxawaay bi mu mu am mais en même temps ñun tam am nañ ci cër kan mooy abonné seen chaîne yi du ñu ñun tam ñoo leen di financé di mooy li ma la wax dañuy nax rek suñu xaalis la ñuy jël di ko lekk di ñu naxaat Suisse amul benn ressource naturelle ay banque rek la xaalis kan moo fa nekk eh, européens yi pour nga def sa xaalis Suisse fu leer ngay jaar laaj France ñaata ministre lañ fa tëj bu ñu gisee seen compte Suisse ñaata africain seen xaalis ngi Suisse. Kaiser voilà ñoom seen xaalis du dugg Suisse facilement mais ñun suñu xaalis africain yi foofu lay dugg kon nag ñun ñu ngi financé européens yi après ñu tourné di ñu not tey ji yéen ñëpp nii presque euh, ko Sénégalais boo dajeel mu ne yoruma dara. dëkk bi dafa dëgër mais am na am na antenne canal abonné na ko wala am na fil bu ñu ko roccil mu ciy fay tuuti pour bañ a raté mag match ligue xaw ma nangam nangam kon nag koo xam ne musulman nga au moins li nga mën a participer déjà mooy que ah journée boobu au moins bu amee bul seetaan match parce que bul xumbal lu araam jullit du xumbal lu araam bul seetaan match bi di seetaan ñuy sol ay mayo LGBT nga leen di seetaan di ci bànneexu di reetaan ku dugal bit nga tàccu xaraam la kon tam day yomb rek toog fee jàmbaar la yow tam nekkal jàmbaar

ci benn dëkk lu dul fekk loi wu dëkkam ñoo ko may loolu te tey ji loi dëkkam mayu ko muy investir ci benn club boo xam ne dañuy imposer nit ñi benn journée LGBT kooku c'est très important levier boobu c'est très important moo tax fi mu nekk nii pour man maa ngi suggérer président Macky Sall na saisir la Ligue arabe saisir la Ligue islamique mondiale saisir l'ex-OCI muy la conférence islamique wax leen ñu régler problème bi définitivement bëgguñu dégg benn musulman mu dem fenn ci àdduna bi muy Chine muy France te sport kese yóbbu ko fa ñu naan ko léegi il faut nga nekk militant wu cause telle ou cause telle muy LGBT muy lu mën a doon te fekk loolu dafay weddante ak ses valeurs et ses croyances musulmanes loolu côté boobu lañ ko war a régler de façon mondiale comme ñu ngi journée mondiale ñun tam leen koy wax guerre na saf mondiale ñun tam nañ leen mondialement sur le plan islamique ne leen du ñu nangu loolu benn citoyen pays musulman di dem ci yéen pour sport ngeen koy bëgg dugal ci yeneen cause yoo xam ne du du pour sport kon nañu saisir na monde musulman bi nañu saisir FIFA ne ko dañu bëgg a régler question boobu sur le point éthique mooy que ni suñuy citoyen musulman du ñu dugg ci benn club ngeen leen di imposer euh, ay ay cause de militantisme yoo xam ne ñu bu ñu leen bëggoon wax yéen tamit na ngeen soutenir benn cause islamique wala da du ngeen ko d'accord nan ngay gisee tekki tekkaaral ñu waroon defee. non non tekki tekkaaral ñu wesaare yow tamit ñun ñëpp a wax. lu ngeen tuddee tek tekki tekkaaral mooy xalif yi wax wala. la république wax si rek. day touché Sénégalais yi. waaw waxaale na leen rek waxaale na leen mais xam nga xalif généraux yi aussi. bon xam nga affaire footballu xale yi mel noonu en général nekk lu ñu yittewoo seen entourage ñoo ñoo ciy xam dara wax leen mais fi mu nekk nii ñun ñëpp nii euh, li ñuy wax mooy li xalif généraux yi euh, nar a wax rek parce que ñun ñoom ñoo ñu jàngal meññ ñu ñu nekk ci daara yi et cetera. beneen bi président de la république bu waxee yóbbaale na Sénégal yëpp euh, ministre bi wax na président fédération sportive bi wax na association yi nekk ci confessionnel comme ànd sàmm jikko Yanamar ak ñeneen ak ñeneen. ak euh, quelques individualités comme man ak keneen mën nga wax ne kon réewu Sénégal yëpp tey euh, wax nañu mais surtout comme ni ma la ko waxee nee naa la question bi tubaab bi pression la bañ monde musulman monde arabe yëpp ñoo war a mobiliser wu pour ñu régler ko définitivement loolu laa la wax mais waruñu leen bàyyee sax ak Sénégal kese mu nekk nii France mën na jàpp ne Sénégal la parce que benn Sénégalais la mais principe bi lañ war a régler te Idrissa Gana Gueye euh, mais li mu bañ ñi bañu ko rek parce que sénégalais tey beneen sénégalais mën na ko bañ mën na ko nangu daf ko bañ en tant que. comme waaw ah, mi ngi noonu Bamba Dieng nangu na ko. mi ngi noonu ku nekk ak xaal bi nga toll ak la nga cay ragal kon euh, kon nag Idrissa euh, bañul rek parce que en tant que sénégalais dafa am benn énergie particulière bu sénégalais am di bañ kon Bamba Dieng bañ. Euh, kon daf ko bañ surtout par rapport ici à sa valeur islamique ci wàll boobu. kon nag du rek question moo tax ma ne la du rek question wu Sénégal mais question wu nee naa la Ligue islamique mondiale ak OCI. nañ saisir la FIFA parce que loolu ñooñ ñooy seen wujj nuñ koy mën a waxee ñooy seen euh, ñooy seen nawle FIFA mooy seen nawle au plus haut niveau yónnee leen courrier ne leen nañ régler problème bi définitivement waaw ni nga xamee ni yeneen question dañ koy régler définitivement tey ji ñoom ni ñu bëggee def LGBT benn agenda mondial réew yëpp nangu ko ba gis nga ku ko bañ tey ñu taxaw noonu la pays musulman yi war a euh, defee coalition ak même certains pays chrétiens de l'Amérique du Sud ak Chine ak Union soviétique bëgguñ ko daal di wax ne non question LGBT bi en particulier parce que ci loolu la ñuy waxtaan nii en particulier question boobu nañ ko régler mooy que dëkk bu nekk na ko régler na mu bëggee citoyen bu bokk ci benn dëkk boo xam ni gëmul loolu bu ñu ko imposer loolu bu mu ñëwee foofu ñu def sport parce que sport la na am benn neutralité euh, des valeurs au niveau des sports euh, jigéen yi bëggoon def muuru temps yi lañ leen doog autorisé mais at yi yëpp dañ leen ko doon tere ñu ne parce que affaire u diine waru dugg ci sport lu tax tam LGBT dugg ci sport LGBT c'est une attitude c'est un kon nag euh, nit ki na muy def ndax day jaxasoo góor wala jigéen affaire am la mais lu tax nga ne sport bi nañu nangu ne loolu dañu leen war a jàppale wan leen am ngeen ci àqu yelleef et cetera Idrissa Gana Gueye terewul kenn def lu ko neex mais dafa ne man nag du ngeen ma jàppale loo par force euh, ak mayo loo xam ne ñoom la ñuy jëf man sama diine daf ma ko tere.